sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi tàmbale sunu kàddu ci ab nuyoo ak ziyaar jëmee ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér di ñaanal Cheikh Abul Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne mooy borom màggalu Kazu Rajab ñu teewe fi ci ndigalam di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te mu ànd ak wér ñu ñëw nag ci ndigalul Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ne mooy jëwriñu màggal gi yor kàddu sëriñ bi jóge ci ndigal lu jóge ci Cheikh Mouhamadul Bachir di jëwriñu Cheikh Abul Baraka ak Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Abdoul Fattah di ànd ak moom liggéey bi naka jekk nu ñëw ànd ak imaam Cheikh Ahmad Rifaa nga xam ne moo waroon a yëkkati kàddu gi maa ngi koy wax léegi ne ko bu ma ñemee ne bu ma ñemee woon ne abbu ayab alquran boobu wax ne wa axi wa afsahu ni yaakaar naa ne moo waroon a moom moo war a jël kàddu gi moo ko moom moo ko gën a man waaye kon moom itam ci ndigalam nu ànd ak mboolem ñi nga xam ne ñooy sëti Cheikh Mahamadul Fadil yi ak ñi nga xam ne ñoo yor organisation màggalu Kazu Rajab ak bokki taalibe yi ñu ñëw teewe si ndaje mu tedd mi ñu yëkkati nuyoo boobu ak cant googu di ko teg ci loxal gouverneur mu tegal ñu ko ci mboolem service yi nga xam ne ñoo teew fii waaye nag mu yëgalal ñu ko ca ministre de l'intérieur ba ci président de la république di ko sant ci kàddu yi mu yëkkati di sant itam kàddu yi ñu fi dégg nga xam ne daanaka mën nañoo wax ne li ñuy am rek mooy rafet njort am yaakaar sant ci li weesu woon te xam ne li ñu fi dégg bu suñu borom mayee kàttan bañ jëfe ko alhamdulilahi rabbil alamin rek la ñuy wax te itam wax dëgg tàmbali nañ kon ñu ngi ñaan yàlla na ko tamay nu ñu yàggoo teew at yu bari te ànd jàmm nu ñëw nag ci bis boo xam ne dafay bis bu am solo di bisu lislaam di bis boo xam ne xew-xew bu màgg daf cee xewoon teraanga ju rëy amoon ci xar baax ak kéemaan yu màgg itam xewoon ci muy al israa wal miraaj sunu borom subhaanahu wa ca màggam ga ca tedd ngaam nga xam ne dara tawu ko mu defal ci teraanga ak màggal jaamam ba ndax abdi la wax jaamam bu tedd ba di sallallahu alayhi wa sallam riñaane ko riñaane ko min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa allazi barak naa xawla ba noppi yéege ko mu dem ba nga xam ne fa mu àgg mën nañu wax ne kenn mësu fa àgg sidratul muntaha fa kaana xaaba xaw nii aw àddina waaye fa awxaa ila abdihi ma awxaa teral ko fa won ko fa yeggale ko foo xam ne kenn mësu faa yegg waaye jox ko sërica boo xam ne itam mooy sunu texe ñun jullit ñi àdduna ak àllaaxira te mooy julli yi juróom bis boobu itam cheikhuna alxadim radiallahu anhu nettali ko wax ko ci lu bëree bëri ci ay xasaayidam fi mu jaar la ca xew xat xaasa faqra faxra min xiini asra bil mi jahra wax ne itam ba mu dem romb na eh, yonent yu tedd yi kenn ku ci ne fa sa daraja toll nga màggal ko teral ko tàggutoog moom mu jàll ba àgg fa borom bi subhaanahu wa taala mu defal ko loo xam ne mësu koo defal kenn kon bisu al isra wal di bisu màggalu Kazu Rajab bisu jullit yëpp la bisu humanité la ndax humanité ak l'islam la sunu borom teral te boobu la joxe l'islam gi nga xam ne mooy mooy tax ak nit ñi àdduna ak alaxira sallallahu alayhi wa sallam ci yërmandeem mu sàkku ci borom ba mu woyefal ko mu wax ca njëlbéen nga mu doonoon juróom fukki julli nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil mi ñuy fàttaliku moo ko daan nettalil boppam moo daan jàngaleel lislaam julli di jàngale ponki lislaam waaye daf daan nettali sax julli ni mu doone woon juróom fukk ba ni ko sunu borom wàññee waaye di ko dugalaat nag ci biir yi li ñu tudde rawaati bi nga xam ne mën nga koo jëfandikoo ba la soboowaatee ci sa coobare waaye ku yem ci juróom yi itam sunu borom dana la defal euh, tuyaaba ja nga xam ne moom la tegtal woon ci juróom julli ya moom moomu nag sunu borom baaxenu mu wàcc ci bis boobu bii di Kazu Rajab mu feeñ ci jamono waaye nag méngoog bis bi méngoog weer wi ndax rajab ci boppam rajabul fard rajab shahrullah nga xam ne naka jekk dafa amoon teraanga yooyu yëpp xewaat ci ak ngëneel li ci am ak màggaay gi am ci rajab buñ ko doon wax fii ba ngoon du jeex waaye Cheikh Mouhamadul Fadil nag sunu borom feeñal ko ci guddi googu yi waaye mu méngoo nag ak guddi gi ndax defe naa ne rek ren ji waxtaan wi nga xam ne seeti Cheikh Mouhamadul Fadil yi war nañ koo def ci màggal gi def ko muy muy muy tam tam tam bi nga xam ne moom la ñu wax war a waxtaanee ci màggal yëpp dañu nafaraat lislaam waaye di nafaraat julli lënkale ko nag ak Cheikh Mamadou Fadil muy diggante Cheikh Mamadou Fadil ak julli ñoo bokk anniversaire mën nañ ko wax waaye nag mu tabaxal àggaleel Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu juma nekkoon itam imaam di jiite juma tabax jumaa yu baree baree bari waaye bu ñëwee ci ponk bi nga xam ne mooy woor sëriñ bi fonkoon ko lool àgg na ci daan bu koor gi masaan ñëw ba mu koy soññee day wax ne koo xam ne àdduna dalaa dalaa jàpp ba jafe wala tànk-tànki jamono na nga ñëw fii ñu jox la loo woore kon noonu la fonke woon ponk boobu bu ñëwee ci xaj màkka nga xam ne ku ne xam ne ne bokk na ci bëgg-bëgg yi Cheikhuna al Xadim radiyallahu amoon ngir dem jooxe ji faraja wa farataam waaye siyaare ji soppeem ba sallallahu alayhi wa sallam 1927 bi ku baax ki làqoo làqoo 1928 la Cheikh Mouhamadul Fadil ànd ak maam Cheikh Anta borom gaawaan ak Serigne Alhaji Tako ñu baax ñoo ñu ma àndaloon ak Serigne Mbacke Bousso dem joxe ji faratee xaj waaye àggalee nag mébétum Cheikhul Khadim radiyallahu anhu joojee kon ne xam na ne asaka Serigne Fallou ku ko fonkoon la ndax ab liggéeykat la woon tool yu bari la sant la sanc ñu daan fa bay ngir àggale jumaay Cheikhul Khadim ji ak dimbale jaam yàlla yi waaye bu may mi masaan ñor day jàng ay alquran boobu wax ne wa xaq xaqahu yow ma xasaadihi wala yow ma xasaadihi ñu génne asaka ji mu daan ko daan ci joxe misaal ci jullit yi ngir ñu fonk asaka waaye da ko daan jëf itam kon noonu lañ fas yéene nafarewaat kon Kazu Rajab gi nga xam ne mooy anniversaire ul mooy ponk bi ci gën a màgg gannaaw shahadatay di nga xam ne asalaatu imaadu diin ci la wàccoon noonu lañ ponk toppewaat nag ponk yi di ko nafar benn benn waaye bu ci ne ñu lënkale ko ak Cheikh Mahamadul Fadil bu ci nekk ñu mën a teg baaraam ci loo xam ne noonu la ko doon defee noonu la ko fonke woon noonu la ci doon soññee waaye nag ñu baaxoo def bu jublu see sëriñ bi dafa daan soññee ci ñu jàng alxuraanul karim ndax ku ne xam na ñaanal ku fi bàyyi ko ni mu toll ak njariñ danam toll borom xam-xam bi dañ koy misaal ci mel ne nii ñuy yónnee ay koppar ci jamono ji booy def rek mu di ko jot booy def rek ci saa sama di ko jot am na sax ci ci ci ci loo xam ne mën nañu wax ne asar la ñu di ko nettali koo xam ne dafa mas a romb ci ay barab fekk ñuy xëccoo xëccoo bu metti mu fekk itam koo xam ne dafa taxaw fee jàppi loxoom ne cell bokku ci mu gis keneen koo xam ne dafa mel ne ku bég li wala fi wax maare maa ëpp loolu Cheikh Ahmad Rifaay mu daal di yàlla defal ko kashfu mooy kashfu suñu borom mën na ko defal jaam bi mu toog ak nit di gis loo xam ne ñoom duñu ko gis loolu nag ñun sufiyanke yi noo ko gëm noo koy wax na suñu borom wan ko mu gis mu laaj leen waaw yéen lu xew ñu ne ko kii taxaw jàppu njàmbaram dafa am ñu nekk ca àdduna di ko ñaanal mu doy lool lool ñee di xëccoo nag dafa am jaay yàlla bu fi jaar sànni leen jàng sóoratul ixlaas sarax leen ko moom la ñu xëccoo nee mu daa di waaw kii toog bëgg moom ba mel ne ko maare ñu ne ko kooka dafa daf caa fëkk dara maanaam bu ñu doon misaal wenn xaraf dupp néeg ba ca kaw nga xam ne matul sax ak waaw moom la ci fëkk moo tax bu mbég mbëg moomee loolu moo tax kon ñaanal ko fi bàyyi ko am solo Cheikh Mamadou Fadil soññee ci loolu kon Kazu Rajab gi bu ñëwee sëriñ bi di soññee ñu jàng alquran def ko addi yi sallallahu ne moom la alquran wax ci wàccoon ci moom waaye def ko Cheikhuna al Xadim mi nga xam ne mooy liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te léppam doon alquran waaye defe ko nag Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moom itam léppam alxuraan la woon ndax gis nañ ni mu fonke woon jàng alxuraan bindal sëriñ bi kaamil yi du jeex waaye daan teral borom daara yi daan leen daan leen daan leen dimbali ba ren bokk na ci waajtaay wi sëtam bu ñu wax abul baraka ñëpp xam ko moom itam ci alxuraan mu taxawal ci musaabaxa maanaam maanaam euh, concours boo xam ne dañ ci jàng alxuraanul karim ku ca raw ñu wutal ko ay neexal te loolu daf ko bëgg a ci maamam ja am na kilifa gu baax ko nu nettali ne ba mu nekkee ci daara ja sëñ fa dafa mas a ñëw nee na bi mu ñëwee dong yi nuyu ko mag ñi nuyoo ñëpp waaye dong yi ku ne mu laaj la fu saw saar bi ñu waxee fu seeni saar toll ba noppi am ci ku ko woon alliwaam mbind mi rafet lool ñu dem ab diir ñu gisaat oto bu ñëw ci dëkk bi indi ñaari walis walis bu fees dell ki yére Cheikh Amadou Fadil ne ko moo ko jox sëriñ daara bi jàngale daara waaye wenn walis yi nag moo ko moo ko jox taalibe bii di seen tudd sëriñ Cheikhouna ngir soññee ko ci àlluwa ju kawe ji ak mbind mu rafet mi ko wonoon bu te la ñëpp tàmbalee di mokkal di bind mbind mu rafet xoola boobu jàngale loolu kon bu ak njabootam bëggee taxawal ab ab ab prix boo xam ne dañ koy tuddee jaa Cheikh Mahamadul Fadil li tahfiz al quranil karim ba di loolu kon dafa ñëw bokk ci màggal gi di liggéey bu am solo ñu di ci fàttaliku nag sëriñ Maam Moor nga xam ne moom sunu kilifa la doonoon ko daan taxaw taxawaay bu rafet ci kër Sëriñ Fàllu ak ci diine ji yàlla dogal moo daan toppatoo njàngum alquran moom yi ndax fii na xam nañ ne daara yëpp tàmbali nañ di jàng ay kaamil yoo xam ne lim bi kenn mënta xam nu mu toll daan ko yëgal lim bi kon moom itam ñu dugg fàttali ko di ko ci ñaanal waaye bi mu nu làqoo itam sëriñ bi dénk liggéey boobu Cheikh Mahamadul Xabbaan moom itam liggéey boobu ba tey mi ngi koy wéyal ni mu koy wéyale ci daari alxuraan yi kon képp koo xam ne jàng nga eh, ci màggal gi alxuraan nu lim bi mën a toll ñu ñu fexe ba Cheikh Mahamadul Xabbaan yëg ko kon daal ñu ngi sant di gërëm di bañ a guddal di ñaan sunu borom may nu nu ko ci jàmm ak salaam te sëriñ bi nee na bu ñu ñëw nañ fas liñ bëgg te xam ne suñu borom borom yërmande la te nangul na Cheikhul Khadim nangul na Cheikh Mahamadul Fadil kon fële ku yitte ju fa nit indi ak lu mu mën a doon nañ xam ne lu néew ci borom bi subhaanahu wa taala la ci mu faj ko kon lu fa waay indi yàlla ko yàlla faj kon buy ñëw lépp luñ bëgg nañ ko faj ñaan ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te fekk ko at yu bari lool te yàlla fayal nu Cheikh Mahamadul Fadil fayal ñu Cheikh Mahamadul Fadil